donc mbir mi laluwul ci ci dëgg ay tuuma la tuuma yoo xam ne que li ñu bëgg moom moo di ngalab ko ba pare it soril ko ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def pour réewam mu di maanaam di saytu di leeral euh, lépp li nga xam ne que day yóbbal day yóbbu réew mi ak démocratie ci kanam euh, moo tax tontoom tontu yu leer la ak tontu yoo xam ne que euh, maanaam dafa fësal ne liñ ko jàppee euh, maanaam jaay doole la euh, léegi nag li may souligner moom moo di que daanaka soxlawuloon sax avocat <laughs> soxlawuloon aboka ba ay question sax posé wuñ ko dégg nga bon tontu yu leer la te it loo xam ne du dëgg bon pour que nga fecc ko dafa nekk lu yomb Euh, li may wax nag di ko yëgle euh, moom moo di que euh, sonn na sonn na ndax maanaam li mu toog fan yi yëpp te lekkul wante wane na dignité ak ngor boo xam ne que li mu dese ci kàttan ak ci doole dégg nga permettre na ko mu jàkkaarloog juge bi. bon écoutez euh, au même titre Euh, tous les avocats étaient présents à l'audition qui a démarré à 10 heures et qui vient de se terminer. Ce qu'on peut dire, comme vous le savez, c'est que l'audition est couverte du secret de l'instruction. On ne pourra pas se pencher sur les déclarations qui se sont tenues dans le bureau du juge, mais on peut dire globalement que l'audition s'est très bien passée, euh, même si Pabalé est très éprouvé physiquement en raison de sa grève de la faim. Mais, pardon. Il rentre chez lui. Ça, personne ne pourrait le dire. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il s'est très bien défendu, qu'il a répondu avec pertinence à toutes les questions. Aussitôt après, le pool des avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire et nous attendons, peut-être d'ici les heures à venir, qu'une décision favorable allant dans le fond de sa liberté sera rendue. Nous l'espérons. Nous attendons. Mais il continue toujours la grève de la faim. Il continue toujours sa grève de la faim. Euh, c'est une décision personnelle. Il a décidé de poursuivre sa grève de la faim jusqu'à sa libération pour des questions de principe. Alors, il y avait une question d'un rapport euh, sur lequel euh, on ne peut pas disait que euh, il sait pas, on l'a pas interrogé que c'est de ça qu'il euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'audition est couverte du secret de l'instruction, mais je rappelle encore une fois ce que, je, ce mhm. ne relève pas du secret de l'instruction parce que ça ne pas le dossier. Je l'avais dit au départ et je le réitère. Oui. Papa n'a jamais été entendu à la police, n'est pas poursuivi pour le rapport d'enquête internet de la gendarmerie. Il n'est pas poursuivi pour cela, je le réitère. Voilà. Alors ci wolof maître. damay wax ci turu avocat yi ñi nga xam ne ñooy layool Pape Alé Niang ah, ginnaaw bi ñu ko déglu sànq depuis dix heures déglu bi ñu ko doon déglu di déglu xóotal ci li liñ koy tuumal déglu nañ ko ci ba pare eh, joxe na ci tontu yëpp macha allah tontu yu am solo. Euh, tontu yu yu dëgër yuy firnde ne lépp liñ koy tuumal dara amu ci même su nekkee nag euh, dafa sonn lool ndax euh, depuis juróom-ñett fan lekkul dafa xiifal mais avec dignité ak fulla ak fayda tontu na ci question yëpp. maintenant nag la mu tontu la ko laaj loolu mënu ko wax parce yoon bi. nga xam ne moo di. benn demande liberté provisoire. waaw ginnaaw bi ñu ko dégloo ba pare ñun avocat yi dugal nañ benn demande liberté provisoire. pour ñu bàyyi ko bàyyi nëgandeku am nañ yaakaar ne fii ay waxtu danañ ci am dogal bu ñu yaakaar moo di ñu bàyyi ko mu ñibbi naa ñu ngi toog di xaar. rab ñu wax ban waxtu lay génn tey lay génn ci ngoon ou après xamaguñ mais am nañ yaakaar ne mën nañ ci am xibaar bu ñu neex euh, fii ak ngoon. ñu yaakaar rapport bi ñu doon coow ñu bëri jàpp moo tax ñu téye ko rapport bi ba léegi kenn posé wu ko ci question ba tey. non mënuñ ko posé question ci loola encore une fois waxoon ko ci début procès bi Pape Alé Niang kenn musu ko topp te kenn topp ko ba tey ci rapport d'enquête interne de la gendarmerie toppuñ ko ci loolu kon à partir de ce moment kenn amul lu mu ko ciy laaj kon loolu bokkul ci dossier bi. d'accord merci voilà. merci merci. alors Issa. oui alors Dabalissa vous êtes vous faites pour la libération de Pape Alé aujourd'hui après son audition qu'est-ce que le collectif peut retenir Nous euh, que ça débouche sur une liberté provisoire de Papa Alenia parce que l'objectif c'est ça et, euh, et, et, dire que aussi euh, ça s'est très bien passé comme les avocats l'ont dit. Nous avons juste après rencontré Papa Alenia, on a pu discuter avec lui et effectivement il nous a certifié que euh, le rapport euh, interne de la gendarmerie n'a jamais été évoqué et que là, il parle même plus de documents, c'est-à-dire euh, des trucs de la police ou bien euh, des sapeurs, mais plutôt en fait des lives qu'il a eu à faire et que en tout cas lui euh, euh, il, euh, il, il, est mal en point, mais quand même, il a tenu à répondre aux, aux questions du juge et qu'il se euh, porte bien et attend en tout cas la suite euh, pour, pour, pour, aviser. Mais Pape Alignan est toujours en grève de la faim et il est quand même très mal en point. Et quels sont les actes que, la, que le CAP entend poser, que la CAP entend poser concrètement pour, sa libération euh, nous l'avions déjà dit lors du rassemblement. Hein. Nous, nous, sommes toujours disposés à organiser cette euh, journée sans presse et surtout à euh, faire un boycott des activités du gouvernement. Et ça, dès la semaine prochaine, si vraiment il n'y a pas une issue heureuse, la semaine prochaine en tout cas, il y aura boycott des activités du gouvernement. Ça, nous l'avons je pense, euh, dit lors du rassemblement et nous l'avons réitéré et nous sommes en tout cas déterminés à aller vers cela. Également aussi, il a des actions non conventionnelles que nous, que, que nous allons mener lors de la semaine prochaine. Donc, on se dit en tout cas que s'il n'y a pas une issue heureuse à l'issue de cette audition-là, la semaine prochaine risque d'être très chaude, risque d'être en tout cas très rythmé parce que quand même nous allons passer carrément euh, en, euh, en la vitesse supérieure. voilà ci wolof kon euh, Ibrahima. tey ngeen ñëw vendredi tey ban cap ban décision la mën a jël aussi par exemple li xamante ni les avocats ont demandé liberté provisoire ban cap la ban taxawaay la war a waaw di rafetlu euh, audition bi nga xam ne def nañ ko tey parce que aussi loolu lañ doon laaj bi ñuy xeex boobu ba léegi ça fait plus de 33 jours que Pape Alé Niang mi ngi ci kaso bi te boobu léegi ñu ngi doon wax pour ñu déglu ko mën ko bàyyi mu ñibbi këram dellu ci njabootam parce que place am du prison aussi ñu ngi ko jàppee ci liggéeyam et loolu mënuñu ko nangu mënuñu ko dégg li ci am ba am mooy que ne gis nañ Pape Alé léegi bi mu paree audition bi ki ñu gis vraiment loof na sonn na wax bu baax sax munu ko mënul sax dox bu baax et euh, ñi ngi ko doon ñaanaat encore mu bàyyi grève bi nee na moom parewul pour bàyyi grève de la faim bi ba fan la jëm yàllaa xam et ñi ngi ñaan yàlla vraiment que autorités yi euh, ñu xam ne Euh, ku déterminé la ñu amal affaire koo xamante ne vraiment euh, homme de principe la et du bàyyi et donc vraiment ab seen ay avocat am déposé nañu demande de liberté provisoire ñi yaakaar que ne fii ak ngoon dinañ ko bàyyi mu ñibbi këram dellu si njabootam ndaxte en fait place am du prison. nga fàttali ñu plan d' action waa waaw plan d' action waxoon nañ ko mercredi passé ci rassemblement bi ñu doon def en tout cas de euh, bu ñu ko bàyyiwulee semaine prochaine moom dina tar trop. ndaxte dinañuy def non seulement grève des activités gouvernementales te it aussi euh, dinañ nañ boycotté activité gouvernementale yëpp nañ yëpp nañ gis moo d'ordre bi nga xam ne dinañ ko lancé te aussi ci même semaine bi nañ def journée sans presse loolu yëpp ñu ngi koy waajal ñu ngi ciy liggéey te aussi na am action non conventionnelle boo xam ne aussi dañ ko def semaine boobu noonu donc pour wax leen ko ne maanaam euh, semaine bi ñuy nar a jëm bu ñu bàyyiwul Pape dana tar trop et dina metti et ñun comme li ñuy yàgg a wax bañu ñu ñun sax ñun boo dem fekki Pape Alé prison ba waaye en tout cas ñi ngi ñaan balaa loolu yëpp ñu ci yegg ñu bàyyi Pape Alé ñibbi këram et aussi it njeexitalu euh, grève de la fin bi mën na doy waar ëpp dayoo et yaakaar naa ne xanaa duñu yegg foofu noonu. merci merci